من ثقة دبير تقرأي مجھے لامية العجم میں الرأي قراد بو رفت سألتني من لما عن الخطل والاسم يمتر وحليت الفضل تكايم غنيل إذا نتني تار اللما لدن عطلي كي يمنو يقو يقوم ونياك تكاي لما وط بد مدوغو تنجمتي ما يخلات قرهات بلا ما يدف درأ dama koy xalaat bu baax a baax loola waral du dugg ci njuumte su fekkee boo dee def danga koy yàkkamtee doo ko togg ba mu ñor mën ngaa def erreur waaye bu fekkee togg nga ko bam ñor mooy xalaat nga ci bu baax te diisoo nga teeg borom xel yu rafet ya su boobaa soo defee du nekk njumte mu ne takkaayal ngëneel nag mooy li may taaral ci jamono bi nga xamee ne jamono bi nga xamee ne aw ma benn takkaay takkaay la may taaral mooy ngëneel doomu aadama su bëggee taarlu dafay wuti yére ak ay takkaay waaye moom nee taaram du ay takkaay du ay yére waaye taaram mooy ngëneel li yàlla def ci moom loolu nag mooy taar bi gën ci taar yi mooy taar bi gën a foot ci taar yi dana wax ne bëri na nit koo xam ne bu dee kanam rek bëri nañu ko dàq waaye fotoom jaral na nit mu def ci xaalis bu bari pour jënd ko fotoom dëral na nit garde ko te ko ko dàq foofu buñ la mayoon photoom sax nga sànni ko ndax daf lay lan moo ko may taar boobu ngëneel taar ak ruuxu la ga bu rafetee taar ba dafay feeñ ci jëmm ji ñëpp bëgg ko doomu aadama ruuxu la ko daay rek la ci nit ki nit nag mën naa muuroo ko daay gu niru lu ñaaw fekk jëmmam lu rafet la waaye ko daay ga muuroo moom ci bët yi mën naa am rafetul mën naa muuroo it koddaay lu nuru lu rafet fekk jëmmam lu ña fekk ñaaw la yàlla mën naa feeñal ci nit ki jëmm joo xam ne ni taxut koo rafet gaa waaye ruuxu ga lu rafet la buñ la wuñu loon ruuxu gi nga ne ndaw lu taaru ndax leer ga ndax taar ga nekk ci ruuxu ga jëmm ji naa nuru lu rafet ni fekk la ci biir yëpp lu ñaaw la maanaam ruuxum lu ñaaw ñaaw la buñ la ko wëññi doon doo ko bëgg sax xool loolu dafay am kon taar dëgg moo di taarab ruuxu taar ak baatin yàlla ñu ko yàlla may moom nag nee loolu mooy li koy taaral ma taari zahiri yi moom du taaram majjii sama teraanga axiran ci mucc wa majjii ak sama teraanga awalan ci الشمس جنت رأد الضحى تنجل بين غير يور كالشمس كم جنت رك في الطفالي جمونك نقول ما جمونا بمي واجي سو من بسان زموك فوق فيك منتي باخ foo ko fekk mu ngi meloo melokaan bu baax mu ne ni ma mel ci sama mujj noonu laa mel ci bu may commencé teraanga rek ci laa mos di nekk lu baax rek ci laa mos di nekk maanaam jikko rafet yi eh, amoon bu may commencé ba demee ba sama mujj doon laa am nit di commencé dara amee jikko yu sell yu kawe yu màgg lool foor lool waaye ba mu demee ba ci mujjëg mbiram yàlla ubbil ko ci teraanga yëpp <clears throat> dafa bew bëri na lu muy am ku mu commencé mbaax mujj ak nëng loolu bëri na lu muy am kooku nekkul nit ku tedd nit ku tedd mooy nit koo xam ne not na lépp mum yàlla rek ko nat léppam si suufam <clears throat> yàlla rek nekk ci kawam waaye koo xam ne alal rek alal ko ëpp doole bu alal ñëwee bewloo ko xam-xamu ko ëpp doole bu ñëwee bewloo ko mbooloo ko ëpp doole jaam yàlla yu bëri yee ko ëpp doole askana ko ëpp doole ak kooku du nit ku tedd du nit ku foor moom nag melut noonu mu ne jant daal jant rek lay doon jamono ba muy commencé ba muy jël ba muy fenk ci commencement ba ak jamono ba muy so yëpp jant rek lay doon maanaam nit ku baax ku baax lay doon ci njëlbeenam ak ci mujjam lépp teraanga yi zaahir yi daf koy yokk jikko rek waaye du ko wàññil su ko defee nag muy def lii nga xam ne mooy baaxab arab jàmbat tumuranke gi nga xam ne nii jaar nañ fa ak coono yi nga xam ne daj nañ ko arab daran pugarewoo loolu muy wax toujours ne nag loolu am na njariñ ndox dangay xool ci lan lañ laan sonn di tumuranke mbiru àdduna yi ñàkk solo la daan doon kon yow mi nga xam ne yaa ngi jublu lu baax di def li nga xam ne yàlla bëgg na ko yonent bi bëgg na ko nit ñu baax ñu bëgg nañ ko war ngaa nangoo sonn ngir loolu fi ma ne xaamatu ci lan lay sax bi zawraa yi ci baxdaad laa sakkani déet sama njaboot bihaa di nekk ci baxdaad wala naqati de sama gëlëm gu jigéen fi haadi ci nekk wala jamal yi du caagéen sama gëlëm gu góor mu ne lu may def fii ci Baxdaad <coughs> Baxdaad bi nga xam ne aw ma fi njaboot aw ma fi gëlëm gu góor aw ma fi gëlëm gu jigéen arab bu waxee laa fii wala jamalu wala wala jamala dafa bëgg wax aw ma fa dara rek او مفدرة رجمه دي من بقوا وفوف لن نعرف كي بغداد او مفنجوات او مفبن على إن دي اجي صوري عن الاحاديث من جوات سفر الكفي دي اجي صون لخو منفرد اجي ويت كالسيف كم جاس جو قمن عري رفلن نجمتناه gannaawam gaani xilal yi waris mbat ya mu ne maa ngi fii Baxdaad sori sama njaboot lool sama tenqus zone maanaam sama loxo dara nekku ci ma wéet lool awma dara mel ni jaasi joo xam ne dañoo dindi mbat ga gannaaw ga amul mbat noonu la meloon foofu ci Baxdaad maanaam <clears throat> amut lenn lu ko mën a suturaal biiram lépp feeñ fala sadiqun déet xarit ilayhi jëm na ci moom mustaka xasani doytuluwaayu tawatuwaayu sama njàqare wala anisun déet aji wettali ilayhi jëm na ci moom muntaha jëzali doy turuwaayu sama mbégte baxdaad googu amu fa xarit boo xam ne su ma jàqee moom laay tawat sama njàqare mu dalal ma amut waaye baxdaad it fa ku mu koo xam ne suma ma yeggee ci moom rek daal di bég daal di kontaan maanaam amu fa dara daal su tiitee moom rek mooy wéetoog njàqareem waaye amul kenn koo xam ne su ko gisee wala mu nekk ak moom di kontaan taala yàgg na ixtiraa bi sama tumurank hatta xanna ba nammu raaxilati sama gëlëm ga waraxluha ak tegam ga mooy lañ teg ci kaw gëlëm ga waqaral asaalati ak gannaaw ak xeej ba xaraa moo di gannaaw xiraa mooy bernde xuraa mooy ay dëkk azubuli ya daway lax ya mu ne tumuranki naa ba sama gëlëm gi namu cosaanam teg biñ teg ci kaw gëlëm gi sax namu na cosaanam waaye sama gannaaw ak xeej gu lax gi sax namu na cosaanam kon moom waxatul nit ñi sax waaye eh, lam ànd ak ci ay jumtukaay sax dafa namu dëkk ba ndax sumu ranke gu yàgg wa dajja yuuxuna min laxabin ngi tag coona nit wii sama gërëm gu lompañ ga wax ja coow na li ma alqaa ngir lam dajeeg rikaab yi samay gawar rikaab naa firi gërëm yi nga xam ni nii mooy yi ngay war wala jaqootal na rakk bu gawar ga mooy àndandoor ya fii azali ci yedd ma sama gëlëm yi yaa ngi yuuxu ngir sonn gawar yaa ngi yuuxu ngir coono bañ dajeek waaye ñi ma ànd ak di tukki ñu ngi may yedd toujours ma ne ma yedd uridu dama bëgg bastata kaffin tàllub loxo astainu dana ma dimbandikoo biha ci moom ala qada ay ci faj ay xaq yoo xam ne xibal yi ñu ngi sama këram li la jëm ci kawe man ne leen sama tumuraanke gi yëpp li ko waral mooy dama bëgg loxo bu gudd loxo bu tàllalu loxo bu gudd nag suñ ko waxee mooy bëgg naa am teraanga ba sama loxo mën a jox ku ne mën a yegg fu ne ma dimbali ko loxo boobu faj xaq yi nga xam ne nii moo nekk sama kanam pour mën a yegg ci kaw maanaam dafa bëgg a wut ci doole nee na moo tax mu tuumaranke kon bu ko gawar gi yedd mu ne waaye wa daxru jamono nag yaakisu mu ngi safaane safaane mu lay jox la bëggut li ngay wut mu jox safaan ba yaakisu mu ngay safaane amali samay mbébét wa yuqniu nii mu may delluloo mu yokku ñoom nii mu may doylu loo min al ganimati ca màng ma baad al këddi gannaaw ak coono bil xafari ci dellu mu ne waaye jamono li ma bëgg lu nekk rek safaan la may jox dana ma rek teg coono ba dellu fu ma jóge woon rek doy na ma koom xam ne jamono daf koy teg ay coono yoo xam ne moom dellu fu mu jóge woon rek léegi loolu mooy koom bi gën a mag ci moom gani mo moni mange manan kom mune wadi shatatin muy kontina di wax njambaram barina ku jub taxawaay ka sadrilu maxi mel ni gannaa wa xeej moo taqilin ki aj yi lonkoo bi mislihi ci ku mel ni moom غير حجاب نكون رجلا كون ولا وكيلي نكون كدادي حلو الفكاهة كن نيح بوصوف مر الجد كويح دق قد مزجت جخسيف نن رقة الغزل سوى بيت بيت موي وقتانك جيجيني مانام كف كن نيح bi shiddatil baasi ci tatak kattan minhu ci moom maanaam tatak njàmbaar mu ne bëri na koo xam ne taxawaay bu jub la yore mel ni gannaaw ak xeej ni xeej jubee noonu la noonu la taxawaayam jubee ma nga lonkoo xeej bu mel ni moom maanaam jël benn xeej doxale ko ci diggante tànk yi ak gawar ak fi muy teg tànkam kooku du ragal du ku doyadi ku mën waxtaan la waaye ku weex dëgg la kafam dañ koo jaxaseeg ak ak njàmbaar bër na ku mel noonu taratu dàq daa sarxal karaa jur gu booy gaa moom la an wér di muqalati yi ci naan nagu bëtëm bëtam wallay lu te axraa xiir na sawaaman naw mi jur gu booy gaa moom nelaw la bil muqali ci nagu bët ya na ku noonu dem na bay gémmantu nga xam ne nii bu doon e, bët ya naanuwaay la nga ne gémmantu ga jur la wàcc na ci naanuwaay boobu maanaam gémant yi dugg nañ ci bëtam ci waxtu woo xam ne ni dégg nga bu doon nelaw jur la nga ne guddi gi xéer na leen ci nagu bët yi ñoom ñëpp ñu ngi ci nagu bët yi bët yëpp nga nelaw fexe naa ba sama waajooju moom nelawut war ak bu te moom gawar ga mooy àndandoo ya miirun way jëng lañ anil ak ci bant teg ya min tarabin ngi teg sigirle saaxin kenn ki aji wuri la mooy koo xam ne ni mandiwut waa xaru keneen sa mbir aji mandi la min xamril kara ci sàngaraay gémmantu mu ne jamono boobu gawar gi ñu nga jëng ci kaw bant teg yi ngir kontaan ñii ñi nga wuri màndi nelawuñ ñi nag ñi nga màndi ci sàngaraay gémmantu bu gémmantu wala nelaw sàngara la ñoom naan nañ ci ba màndi maanaam ñii ngi nelaw ñii nelawuñ fa qultu ma ne ko ma wax sama boobu ne ko ko man lay xoo lil jullaa jëm ci mbir mu màgg mi di tan sura nii ngir nga dimbali ma <clears throat> wante te fekk yow tax zuru ni yaa ngi may gàccaal fil xaadis yi ci xew-xew bi aljalali ba da aji néew maa nga dem pour nga dimbali ma ci mbir mu màgg <clears throat> nga di seetaan ci mbir mu tuusi mi tanaamu yaa ngi nelaw an nii waris ma waayinu najmi tëbbatu biddiw bi saaxiratun aji foog la maanaam nelawut wa tastaxiilu yaa ngi soppeeku wa sibxu layli te cuubu guddi gi lam yaxuli soppeekuwut yaa ngi nelaw te biddiw yi nelawuñ <coughs> yaa ngi soppeeku te guddi gi moom cuubam maanaam lënd moom soppeekuwut yow yaay changé waaye dara changé wut <coughs> lépp ngi góorgóorlu kon bul changé faxal tuinu ndax danga ma dimbale ala xëyin ci ak réer xamam tu yittewoo bii ci moom wala xëyu te réer yes juru day dàq axyaanan léeg-léegi anil fachal yi ci échec moo di njumte mu ne ndax nag ma dimbale ci réer gii ma bëgg a dugg looxuur gi ma bëgg a def musiba bëgg mu ne réer nag day waral léegi-léegi nit ki du tàppet fachal mooy tàppet rek léeg-léegi nit réer mën naa tax nit ki du tàppet ndax ñaareel ko xamul dafay ñeme ñeme naa dugg ci lu ne ñeme naa def lu ne ba musiba bi ci ka mu door a xam foofu du yoon wa mu ne indi nag man uridu danaa bëgg turuqal xay fëgg gàdd ga min idamin ca idam waqad xamaahu te aar na ko rumaatun ay sànnikat min bani sual yu bokk si banu sual li bëgg mooy fëgg gàdd gi nekk ca idam maa bëgg gàdd mooy quartier fëgg leen mooy nga dikkal leen guddi maa bëgg demal quartier ba nekk ca idam te ay sànnikatu fett yu mel ni ñu bokk ci banu soal nga xam ne ñu xamee woon lañ fett ñoo ko ñoo koy garde yax mu ne da aar bi bii di si jaasi yu weex yi wa sumri ak xeeju zon ya la daani yu nooya bihi ca gàdd googu suudal xadaa'iri way ñuul ay lett xumral xal yu xonq ay takkaay wal xulali ak ay koddaay ña nga yore jaas yu weex ak ay xeej yu nooy di garde jigéen yu ñuul ay lett sol ay wurus muy takkaay yu xonq ak ay soy muy yëre yu xonq jigéen ñooñu nga xam ne takkaay yu rafet lañuy sol ak koddaay yu rafet lañuy aar foofu daal laa bëgg a jëm fasir doxal bina ak ñun fi dimaamil layli ci kóllëre guddi gi mu'tasifan di aji xëtt xëtt mooy jaaral fu neex rek fanafxatu tii bi bondi xetu parfum ya wala bondi gëtt ya tax diinaa danañu jubal ilal jëm ca wàccuwaay ya mu ne yow nañu ànd rek dox ci biir guddi gu am kóllëre gi ndax guddi ku bëri sutura la nañ jaar fu ñu neex rek xeetu parfum yi daal fa muy bondee rek foofu mooy kër ya maanaam fa mu jëm ñooñu ñu mën a noos lañ ñu ne xeet lañ fal xubbu mbëggeel ga xubbu soppe ba xay su fa noon ba wal usdu gaynde yi raabidatun way góor lañu xawlal kinaas yi ci la wër kër raabul ak gott gott barab yu sëq garab gaynde yi di fa dëkk minal asari te moo di ay xeej mu ne lim bëgg ci biiri noonam la nekk te ay jàmbaar yu mel ni ay gaynde yu goor ñoo ko wër yore ay xeej yu mel ni ay gott mel ni ay garab yu sëq fa lañ dëkk kon fa mu jëm ñu ko ñu koy garde ay jàmbaar lañ ma nirule génne gu xoor góor ci du wër kër ga génne ci gott lay dëkk waaye mu ne ñooñ xeej yi ñu yore mooy seen gott na umu danañu jublu naa ci atan ab jànq bil gis yi ci lunk lunk xuur wa xat suqiyat nàndal nañ misaaluha ñëw kaam maanaam daf ko niroleeg weex weexu jaase bi miyaahil xan ji ci ndox maamoom njeegat la wal ka xali ak tusngel mu ne ab jànq lañ bëgg a jublu foofu bu nekk ca xurwa bëtam yi rafet bu mel ni jaase dafa mel ni yàlla daf cee def ndoxam tiitaru mooy xan ji ak tus nga noonu la bët yi mel bët yi dañu niroo léeg ñëw ko ni bët weexe qad zaada yokk na tiibu ahadisil kiraam neex ak waxtaan ak way tëdd yi ci moom lu yokk maa bil karaa'imi la nekk ci jigéen ñu tedd ña min jub nin ci tàppet wa min buxali ak ci nay mu ne jigéen jooju waxtaanee gu koy góor ñi di waxtaane moo yokk tappetam ak nayam tappet mu di ragal sopp nañ ko ci jigéen waaye jigéen ju ñeme lu ne mu ñeme koo def ñeme ñeme koo wax kooku baaxut waaye nayit sopp nañ ko ci jigéen moom bañ na ko sax ba lislaam daf ko xaar xiir ko sañu def ci alalam lu borom këram yëgut waaye waxuñ nag ngott doo joxe lekk doo joxe kii waaye daal bañ di pasal pasale alal moom kooku baax na ci jigéen góor ñi waxtaanee gi ñuy waxtaanee ndaw soosu moo yokk tappetam ak nayam te biitu dana fanaan naarul hawa hawa safaraay bànneex min hun na ci ñoom fi kabadin ci res xarraa bu tàng ba mel ni luy lakk wa naarul xiraa safaraay bernde min hum tukkee na ci góor ñi alal xulali ci kaw doja jigéen dañoo mën a bëgg ba safaraay mbëggeel xawaa muy mbëggeel rek day mel ni mbëggeel dafay takk seen xol yi mel ni safara suy lakk moom nag seen res yi la wax maanaam jigéen ñi laay bëgg wax dañoo mën a bëgg ba mel ni mbëggeel gi dafay tàkk seen res yi góor ñi tabe ba toujours ñu ngi taal safara ca kaw doj yi pour pour berndeel jox lekk ñu bëgg lekk yaqtun na danañu rey andaa u xubbin waaye songo ngi teg bëggeel la xaraaka di teg yëngatu bihim di nekk ci ñoom waaye na xaruuna danañu lëj ñoom góor ñi kiraamal xëy yi way teddi fas ya wal ibili ak gëlëm ya jigéen ñooñu ña ngay daaneel ay góor yoo xam ne dañoo sonn lool ngir bëgg jigéen ñooñu waaye góor ñi ñu tabe lañ ñu ngay rey fas ya ak gëlëm ya fas yu foor ya ak gëlëm yu foor ya ci ngiram maalik nag fas kenn du ko lekk li mu bëgg wax rek mooy góor ñi dañoo tabe mën a bëgg jigéen ñi mën a bëgg ishfa danañ saafara la déexul awaal yi كنو ماتي خاجيا خاجي كوي في بيوتهم تين كريا بنهلة تشاغنان من غدير الخمر تي دقك سانغرا ولا عصري اغلم بلا جميع اي خاج بوادي مي بلا ناندري سين سانغرا ياك سين لميا nga dal di wex manam dekk bu neex la laalla ilmaamatan amaana wàcc bil gis ci lunk lunk xuwa saaniyatan yoram ñaareel ya dana dukkat minaa ci moom na siimul biri bur i ngelaw lu nooy laa moom wér la fi xila lii ci sama ràgg-ràgg muy sama feebar mu ne amaana ci xur woowu yoonu ñaareel eh, sama feebar bi dana wér nga xam ne wiir bu doon ngelaw lu neex la dana wàcc ci biir feebar laa këraw si bu mu attaanata njam jam a najlaa bi aji yaatu xat sufiat ñaare lee nañ ko resqatin ci jam min nibaalil ayuni ci fett yaa moom ay bët la an nujuli yi dafay yaatu si bu ma ñu jam ma jam gu yaatu su fekkee buñ ma jamee xejja danañ ko ñaarelee jëmma fetti yi nga xam ne nii du dara lu muy bëti jigéen yu rëy yooyu maanaam su fekkee bi ma jëmee xeej jigéen ñi danañ ma xool baax na lañ ma jëm kooku ragaluma ko wala ahaabu du ma ragal assifaaxa dojja al bii dajade ay way weex tusidu nii yooyu dañ ma texel bi lamxi ci géndeeku min xilalil astaari ci diggante ruda ya wal kilali ak sànke ya doju yaatu yu weex yooyu buñ ma ko jamee su fekkee dana tax ma mën a yurndu rekk ci sànk yi ak rude yi ba xool ndaw sa loolu doy na ma ragaluma bëgg na wala uxillu duma yàq bi xislaanin ci jongama tuxaasilu nii boobu dana béjanteeg man mooy danay waxtaan ak man rawda haqliɗira joom allama o suuduro xeeli gaynde ya moom ay gottla gaynde ay gottiya bil xeeli ci ay yongaan yongaan wañu alag alag ko mu ne jong ma ju rafet bu mel ni kiwal buy waxtaan ak man du ma yàq waxtaan wa dire gaynde yu nekk ci gott dañ maa songu andi أريد الإسلام واستطعت ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته